te ku yeewu chaque matin dégg ngeen sax wax ci fii dama doon dama dama bindoon benn lettre suma yaay ne ko yónnee ma lem lem bi jeex na parce que saa yu may yeewu damay jël lem du ma ndékki lem lay ndékkee su ma pare dem sport ñaari waxtu su ma paree ñaari waxtu ba duggaat ci kaso bi damay toog foofu ci benn place di ñàkk pendant ñaari waxtu te loolu ko def pendant juróom benn weer di am lu bëri heure bu añ si jotee nga añ añ bi du añu kër parce que añ da koy bokk ak sa gaañ yi reer su jotee pendant juróom benn weer lekkuma mburu mburu big laa lekk mburu salade rek lay lay lay reere kuy añ ku dul ndékki du lekk mburu kuy ceeb du lekk mburu kuy reer ay salade rek kooku du lekk mburu donc maa ngi dalal seen xel su ma amoon dara ma wax leen ko parce que man wax lu amul du ma du man dama am njaboot am tamit mairie te su ma leen waxee di ngeen ma gis ci ay fan yu new di ngeen ma dégg ci ay fan yu néew su ma feebaroon damay génn fii dem faju ji dara daluma dara jotuma pour tey euh, am lu ma am ci poids tey maa ngi 77 kilos j'ai perdu daanaka lu ma dindi ci poids mi ngi tollu ci 30 kilos 30 kilos nag effectivement ku ko dindi ci yaramam ala kulli àll ngay gis wante am na sax ku ma wax ne nii ne moom yow fii ak benn weer léegi yaram gi ñëwaat ma ne ko ah, ñaanal ma rek ma xaw a mel nii parce que amoon na jamono dama doon dégg ah yow Baxte yow coof nga mais ma dem ba ci biir ma gëj a dégg daal que coof la am naa yaakaar dinaa déggaat ne que coof la waaw du noonu waaw.